alhamdulillahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala sayyidil mursaliin wattaabi'iin laa hawla wala quwwata illa billahil aliyyil aziim hasbunallahu wa ni'mal wakiil assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh ñi ngi nuyu mbokki jullit yi nuyub jullit di nuyub lislaam di nuyoo bi nga xam te ni suñu borom subhaanahu wa tabaraka wa moo ko dénk jullit ñi waaye ginnaaw suñu nuyoo ñi ngi siyaare mbokk jullit yépp di leen jox seen wàccuwaay waaye na mbokk jullit yi nga xam te ni dañuy faral di teewlu seen jotaayu yóbbulu ndaw ñi ñu ngi ñaan suñu borom defal ñu tawféex ak yërmandeem waaye nag mu mel ni dañuy dellusiwaat rekk comme niñ ko waxee léegi suñ jotaay ak yóbbulum ndaw ñi muy jotaayu fàttali ci diine waaye jotaaye xam-xam ñu doon jàngale téere bii ñuy wax al jawharun nafis suñu xoolee nag suñu bind bii mujj kon comme niñ ko baaxoo defee bind buñ mujjee jël dinañ ko def genre résumé ngir bëgg ki ñu doon topp xam fi yaman kon bunt bi ñu mujjee mooy bi doon wax ci wàllu wax lu dul dëgg mooy fen mu waxoon nag fen ni mu bonee ak la aju ci moom ak fi muy yóbbu nit ki ci ak toroxtaange ak la ca aju kon nag ba tey mi ngi ñëw ci li ñuy wax fen ba tey mooy wax lu dëgg di ci leeral yenn ci ay leeral yoo xam te nii yenn ci boroom xam-xam yi dañ koo wax bismillahi rahmaani rahim moo tax mu ne lakinnahu waaye nag moom fen xasamahu séddale nañ ko bax du zawil axkaami lenn ci woy àtte yi li xamsatil axsaami ñeel fen juróomi xaaj fa xaala wax na jaamixan mbir mu muy boole lëxu ñeel ko fii xadadi sittatil abyaati ci limu juróom benn ci ay bëyit bi nazmin ci ay way jayid way aji rafet kon mu wax ne moom wax lu du dëgg lenn ci way ñi nga xam ni ñooy àtte diini séddale nañ ko juróomi xaaj moom wax lu dëgg juróomi xaaj lañ ko séddale def ko ci juróom benn bayit moom mii di wax juróom benn bayit la ko def ngir leeral fen juróomi xaaj yooyu yan ak yan la xaaj yooyu yan yan yan la moo tax mu ne li xamsatil aqsaami ñeel na juróomi xaaj yooyu xasamu séddale nañ ko al kazib moom fen fa minhu bokk na ci moom man duubun wu ñu sopp wa minhu bokk na ci moom fen ba tey maa wa nga xam te ni yajibu dana war man duubuhu wu ñu sopp wax lil xarbi ñeel na xare wal irhaabi ak xuppe lil kaafiri ñeel ab yéefër yàq daxu goog dana ko wor bil kizaabi ca fen wa mu nekkat kon fen dañ koo séddale juróomi xaaj juróomi xaaj yooyu am na ci woo xam te dañ naan fen wu sopp la am na ci fen woo xam nii tamit dañ naan fen wu war la mu njëkk ci fen wi ñu sopp mu ne fen wu ñu sopp bi mooy fen wan mooy nit ki nga xam nii dafa fekk ñi nga xam ni gëmuñu yàlla ci jamonoy xare ñu bëgg a jóg attaqué jullit ñi ngir rey leen faagaagal leen ba mu yëgee loolu daal mu dem ci ña nga xam ni gëmuñu yàlla te bëgg a xeex ak jullit ñi daal di leen di wax lu du dëgg ragal loo leen ci misaal mu wax leen ne leen di jullit ñi ngeen di bëgg a rey de ñi ngi leen di waajal di leen xaar wala yor nañ ngàndaay yu bari te nit ñu baree Euh, boo boo leen songee rek nañ leen rey yéen ñëpp ragalloo ñi di jullit ba bàyyi ndax aw fen moo tax mu wax ko ba far ñooñee bëgg a doon rey jullit ni mu far bàyyi jullit ñi ndax ragal nee fen woowu mooy wi ñu xam te dañ koo sopp ndax aar nga jullit ñi ci musiba boobu nalalu leen a dal mu ne fen wi nga xam dafa war nag moo tax mu ne waajibuhu aji waram lil fakki maalil muslimi ñeel na xob bi alitu jullit ñi wa maali nafsihi ak alalu boppam xaqiiqan ca dëgg-dëgg fi dammi ci deret mu ne fenn wi nga xamte nii nag dañ koo waral mooy nit ki nga xam nii dañ koo war a rey wala dañ koo bëgg tooñ jël alalam wala ñu bëgg a tooñ moroomu jullitam jël jël alalam wala ñu ray ko mu daal wax lu dul dëgg ba kenn rey ko kenn jëlut alalam wala mu wax lu dul dëgg ba mbokkam miñ la a rey wala miñ la a jël alalam lor ko mu wax lu dëgg ba musal ko ci loolu mu ne fen woowu kon mooy li nga xam ni moom la tuddee fenn wu war ndax aar sa mbokkum jullit ak aar sa bopp gi mu def mu ñëw nag ne mu baaxuhu aji daganal ci moom fen aji dagan ci moom fen mu ne yaa saaxi yow sama àndandoo lil islaahi ngir rafetal baynal wara diggante mbindéef yi maa fii lépp lu nekk ci moom min junaaxin dit muy bàkkaar mu nekkat fekkee nag fen wi nga xamte te nii nit ki daf koy def ndax lan moo tax mu def ko dafa fekk ñaari jullit ñu réeroo mu fexe ba jubale leen ci ay wax yoo xam te ni wax yu lënt la fexe ba jubale leen mu ne fen kat wu dagan la dara nekku ca li tax nag mooy jubale gim jubale ñaari jullit yoo xam ne dañoo jubawutan dañoo xuloo wala dañoo réeroo woon mu ne makruuhu wu ñu sib wa fen wi nga xam dañ koo sib moom luñ sib nag bu waxee mooy loo xam te ni boo ko defee doo ci am bàkkaar waaye boo ko bàyyee nag da nga ciy am tiyaaba mu ne makruuhu fen wi ñu sib li zawjatin ñeel na soxna tatbiha tatbiban tatbiban ngir teeyal li nafsiha ñeel boppam walibnihi wala doomam tax bi ban ci soppaloo xaramahu xaraamal nañ ko huwa moom allazi fenn wa nga xam ni xad xulima xameef na ko li xayrima manfaxat ñeel lépp lu dul jariñe sarxiyatan ci sara ci sarixa mu ne fenn wi nga xam ne dañ koo sopp dañ koo sib muy nit ki nga xam dafa yor jabaram wala soxna si nga xam dafa am jëkkëram di ko wax wax ju neex ngir bëgg ñu gën a juboo waaye mu koy wax loo xam ne du dëgg wala mu koy wax wax joo xam te nii amul ngir bëgg ñu gën a juboo ngir bëgg koo neexal wala muy wax ay doomam wax loo xam te amut ngir bëgg ñu gën a juboo ak moom wala ñu gën koo sopp wala ñu gën a soppante di leen wax loo xam ni amut moo xam soxnaa koy wax jëkkëram moo xam jëkkër moo koy wax soxnaan wala ñu koy wax seeni doom ngir bëgg gën a jubóog moom nee na fen woowu wuñ sib la mu nag fen wi xaraamal nag mooy fen wi nga xam te ni ñu la waxoon yépp defu ci benn nga xam ne moom kii moom day wax lu dëgg rek ngir jëmmi boppam nga xam ne day wax lu dëgg rek dara ngir teg ko fenn te wax lu dëgg rek moo ko tax a jóg nga xam ne amul lenn lu ñu yoonal ci loolu muy wax lu am ci sariya neen fan boobu dafa xaraam waxaala ak muy wax xaw mun nit ka xaw mun aw nit kulluhu képp ci ñoom xabiyihun aji bon la waxwate moom saxihun aji wér la fii mashhabina ci sunu ngir waaye nag mu loolu la tàmbalee ca lim waxoon ba yegg ci xadd xalimaa gi loolu waa ji dafa am ku ko doon wax waaye nag moom ci boppam moom sëriñ bi wax na ne fenn yépp daal yim tàmbalee wax yépp di yi yu dagan yi yu yi ñu sibag mu ne fenn yépp daal fen yu bon la fen yépp benn baaw ci li gën a wér ci sunu ngir muy ngiru imaam Malik fen yëpp benn baaxu kon daal li gën mooy nit ki dinay wattandikoo fen muy wax lenn lu dëgg moo xam ci jëmmi boppam la moo xam ci alalam la moo xam ci soxnaam la moo xam jëkkëram la moo xam ci ay doomam la moo xam ci defar ay jullit la moom daal li mu war a def daal mooy fexe ba lépp lu mu bëgg wala lépp lu muy wax na fexe ba bañ caa fen donte dañu koy rey na fexe ba lay ba génn ca maanaam am ay waxi léeb maanaam di wax ay junju ba fexe ba génn ca ba bañ a fen loolu daal mooy li nga xam ni moo gën nit ki daal kon war naa wattandiku fen fen daal benn baaxu ca ndax wenn woo ci def ëllëg mën na indil ay jafe-jafe ndax nit ki mu waxoon ne bu dee góor bu dee jigéen muy wax soxnaam lu dul dëgg wala jigéen di wax jëkkëram lu dul dëgg loolu mën naa dem ba indi leen ay jafe-jafe ndax mën naa dem ba xam ne kii li koy wax ay fen rek la mu bàyyee ko ci xam ne kii kon dootu ko gëmati wala mu dem ba di ko nëbb dara ba mu feeñ ngir bëgg ko neex mu feeñ far nekk indi coow kon loolu daal li wër te wér mooy waxante dëgg rek moo gën a wóor wattandiko lu dul dëgg ndax yooyu yëpp li muy indi mooy ay jafe-jafe rek moo xam doom jëla mën na koo indil jafe-jafe moo xam jëkkër jëla wax lu dëgg moroom moroomu waaye dencanteem mën naa dem ba indi leen ay jafe-jafe kon nag li wérte wóor mooy nit ki daal na fexe mën a wax dëgg ak lépp lu muy def mu def ko ci dëgg lépp lu muy waxin mu wax ko ci dëgg ak moo xam mu wéet moo xam mu wéetaliku dëgg nag yàlla rek moo ko moom képp kuy dëggal yaa ngi nekk ci yërmande yàlla kon nag dëggal rek moo wóor dëggal rek mooy am solo kon dafa mel ni foofu la yam ci ñàkk a wax lu dëgg mooy fen ak lim ci doon leeral kon dañuy wàcc foofu jotaay bi di jox dig daje beneen jotaay bi di ñëw mu indi lan mooy ràmbaaj ràmbaaj kon lay dugg si incha allah rabbi jotaay bi di ñëw kon ñi ngi wàcce kàddu yi di siyaare ak di sant mbokk yi nga xam te dañuy teewlu jotaay bi soppe yeeg am di jàmm yépp ñu nekk ci biir réew mi ak ñu nekk bitim réew ñu ngi jot seeni wax ak seeni message ak seeni soññe wax dëgg yàlla yépp am solo ñu ngi ñaan suñu boom defal ñu tawfeex defal ñu mujj gu rafet defal ñu dégg ak topp wàccel ñu yërmandeem ci suñu kaw kon dañuy wax rek ne lépp lu jub ci waxtaan wii de yàlla suñu borom la waaye lépp lu fi dëng it nañ xam ne doomu aadama moom matut kon ñu ngi wàcc kàddu yi di wax in uriidu ilal islaaha masataxtu wa ma tawfiqiya illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wasalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sëriñ bi dana sëkk tey ak ëllëg kon nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey